2024 Bon, c'est un peu compliqué pour certains Sénégalais. D'abord, les lois loi presque divisé les politique. Mm-hmm. en particulier les leaders et les partis et coalitions. mais bi ci gën a nationale bi nga fait un parce que on dit que les députés représentent le peuple Nous avons une légitimité représenter peuple mm-hmm. parce qu'on dit que le pouvoir exécutif qui est incarné par le président de la République et élu en suffrage universel direct par le mhm. peuple. La L'Assemblée nationale, qui est incarnée par les députés, sont est élue par suffrage universel direct par le peuple. Le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, bien euh, me regrouper les cours et tribunaux. ils sont nommés par décret venant du président de la République. D'abord, quand on parle de séparation de pouvoir, mhm. andi na benn amalgame fii ci réew mi te moment bi ñetti pouvoir yooyu dañoo jaxasoo ndax ku nekk ngi tiñal sa morom mais tey boo xoolee ñi ci gën a am solo gën ci am doole mooy le pouvoir législatif bi nga xam ne ñoom ñoo yor kàddu askanub Sénégal. Mm-hmm. parce que aussi ñuy fàttaliku ne les lois aussi assemblée nationale lañ koy voté. Mm-hmm. proposition de loi yi nga xam ne moom mooy doxal pouvoir judiciaire ak justice bi ak dëkk bi assemblée nationale lañ koy voté député yi ñoo koy proposé mm-hmm. pour wan la tolluwaay ak dayow député ci ab dëkk mais benn seul malheur la ñu am mooy nous avons des députés mécaniques ñu baal ma ci waxe bi parce que quand on dit que majorité mécanique à la assemblée nationale député dañ koo nangu cette formulation boobu gars yi dañ koy tàmm di waxtaane te député yi bañuñu ko suñ demee nag ba jël ab doomu aadama féetale ko ci mécanisme mécanique mooy koo xam ne yaa koy doxloo yaa koy defloo yaa koy diriger comme oto bu ñuy wommat volant bi fa nga ko jubal rek fa sa xel jublu ci volant bi fa la jëm. Mhm. kon député suñu nee ba accepté ñu ne député mécanique à travers leur leader président de parti yi nga xam ne ñoo leen di nommer tabb ci ay liste pour ñu fal mhm. on doit se reposer la question ñoom député ñan la ñu nekkal ci assemblée nationale. tout à fait soit ils sont là pour le président de la république élu soit ils sont là pour des positions crypto personnelles venant de leur leader politique te soo xoolee loolu moo am assemblée nationale mais tey bi gën a surprenant li gën a surprenant ci par rapport ak euh, loi d'amnistie bi bokkoon na ci abstention bi nga xam ne moom loi Pastef mm-hmm. les députés de l'ex Pastef def foofu laay njëkk a tàmbale abstention mooy lan tànk da nga koy tàllal mbaa nga banque ko eux ils ont joué deux euh, un double jeu waa mm-hmm. Pastef ils ont pas été sincères à l'endroit de leurs militants et sympathisants xam nga Pastef nous incarner benn discours et des ak comportement politique c'est un comportement politique de vantaguerre, de guerrier non gatsa gatsa non fi nek ni, idéologie bi ñu fi nar a teg mooy jëli li fi nekk système bi baaxul est loolu ci la jeunesse ak certains responsables yu passif dafa dem ba porter un préjudice ci biir combat politique mhm. radicalisme un ci mais combat politique finalité c'est autour d'une table à travers des négociations à travers des dialogues mhm. position pour ñu dem dialoguer pour ñu dem négocier bëgg nañ mais parce que ñu jot ancré ci seen esprit militant yi dañuy verdict populaire dans sen kaw ci ñoom bu ñu demee ba wax ne dañuy waxtaan wala dañuy dialogue donc ils ont créé un trou boo xam ne dañ dem ba ñoom dañoo dugg ci trou boobu des ci mais tey quand on dit que abstention mooy koo xam ne nii oui ni non bi ñu doon bañal président Macky Sall mais waa ex-Pastef moom lañ def assemblée nationale ils n'ont pas dit oui pour la loi d'amnistie ils n'ont pas dit non pourquoi ma wax loolu mooy si ils avaient dit oui nous sommes pour nous votons la loi d'amnistie ils auront le verdict populaire de la jeunesse et des responsables ils les ont ancrés que combat de guerre de guerre de guerre, de guerre, pouvoir bi ils seront décrédibilisés par leurs militants et sympathisants oui non suñ ko verdict populaire dañ la li ngeen di carte carte yëpp bugg Ousmane Sonko génne kaso bi parce que dire non à cette loi d'amnistie venant des députés de Pastef mooy xamal les militants de Pastef xamal Ousmane Sonko ne ànduñu pour ñu libérer ci kaso bi. Mm. donc dañ dem ba rek ci benn genre épée de Damoclès boo xam ne il c'était pas dans tous les cas bu ñu ci jël duñ ci mën a am benn position bu confortable mm-hmm. ils ont préféré rester dans la muette et dire non nous allons être neutre neutralité amul si politique politique da ngay far. surtout qu'on a vu que ñom ils ont été très radicaux euh, depuis le début di wax ni que ànduñu ci li nga xamante ni euh, cette loi d'amnistie. mais effectivement ils ont fait des communiqués en disant que non à l'amnistie ils ont crié de temps tout ci toit yëpp ànduñu ci liñ doon xaar moo ñu dem ba assemblée nationale. deugal sen cadre deugal sen bop ne carrément ànduñu ci loi bi ñuy voté muy non comme ni ko wa taxaw Khalifa Sall defé mais tey dem nañ ba àndi benn amalgame boo xam ne. léegi pour nga situer leen euh, principe politique bi nga xam ne moom lañu yor di ko incarné idéologie bi ñuy incarné ñoom dañoo dem ba dañoo réer ci seen idéologie politique ah. en tout temps voulant éradiquer le système bi fi nekk nga dem ba mujj bi di jaxasoog système bi fi nekk dangaa dem ba benn instant ba boobu léegi ñoom ils ne se retrouvent plus que ils sont en train de combattre un système ou ils sont dans un nouveau système tout en mélangeant les deux systèmes dañoo dem ba mais ce war leen andil ab war andil discrédité bi tax ñu war Sénégalais parce que la base est la source de la loi d'amnistie bi nga xam ne moom le président wax. Mhm. dans la paix dans la joie Sénégal retrouver waat harmonie mhm. parce que diggante 2021, ba 2024 bi ñu nekk situation fitna bi am ci réew mi coow bi am ci réew mi xel dalatul kenn xamatul si fan ngay fiite économie bi taxaw na jàmm ak salaam amatul ci biir kër yi famille yi xaajaloo nañ ay doom bay tasaaroo nañ ñi bokk ndeeg bay tasaaroo nañ ñi nga xam ne dañoo bokk entreprise yi liggéey tasaaroo nañ loolu lépp par des besoins crypto yoo xam ne moo ko andi mais tey quand on dit que on doit couper cette racine bi nga xam ne bokk na ci li andi fitna ak li nar a taal réew mi pour ñu concentrer wu au développement de ce pays je crois que tey am na fam ne bu ñu fa tollee rek war nañu dellu soit suñu sago xam ne réew mi jàmm si lañ ko mën a développer tey nag ñoom ils ont montré les Sénégalais leur véritable face j'ai écouté Guy Marius Sagna mais Guy Marius Sagna discours bi mu def yëpp baax na mm-hmm. mais dama jàpp ne ci biir discours am dafa nuancé tout disant que non d'accord parce que ni faatu ñi faatu ils ont toujours utilisé ñi et de masses ñi faatu tout plateau a damay ci manifestation politique ku ñu ci kasso ci manifestation manifestation politique parce que suñu leader politique yi sen bop qui len ci combat yi frère au contraire les citoyens lambda yi nga xam esprit patriotisme ak civisme gëm seen drapeau gëm seen bopp engagement boobu la ñuy utiliser jiital ko jiital ñooñu mais su wala ils sont accompagnés chez eux à travers des 8 des V8 à travers des gardes-corps à travers des situations yoo xam ne kenn du atteindre moo may wax chaque fois ne tey coup des pertes la preuve on a voté la loi d'amnistie hier à l'Assemblée nationale dédommagement bi ñuy wax combien de personnes près de presque, presque personnes sont mortes. ay ndaw yo xam ne mérité wuñu lii à travers des manipulations ñu fexé ba ray ay bakkan yo xamantene ils seront comptables par A ou par B tôt ou tard ku su dugg ci bamel di ko loo yalla suñu borom loolu dañ koy bàyyi xel y a la justice contemporaine des hommes mais y a la justice divine bu suñu borom te ku teg ci ñun kam ngay jullit ka ngay catholique xamul suñu borom wax

ban soulagement la la responsabilité de ceux ñi nga accusés, nous accusé que ne ñoo ay balu ñu la ñuy ñi ñu la police c'est les forces de défense et de sécurité ñi naan for force occulte ñi terroriste y a trop de euh, euh, euh, discours manipulatifs finalement les sénégalais situé tuñu mais

di bay di yóbbu ci Auchan yi yàq nañ seen i contrat station Total yi nga xamante ne suñuy wax dëgg dëgg dëgg naan tubaab yee ko moom d'accord Total la source Total c'est français mais tey gage yi nga xam ne moom moo boole Total ak Sénégal mais da ngay dem si ñoom ay convention ubbi yu ci bari ay sénégalais ñoo ko moom di si liggéey boo xoolee sur le plan des infrastructures publiques muy l'argent du contribuable sénégalais di nga xam ne moom lañ defaree BRT ñu yàq ko terre bi édifice public yi nga xam ne état moo ko moom loolu yëpp nekk ay presque deux ans yëpp on a souffert mm-hmm. de voir que ça a été benn malheur ci Sénégal mm-hmm. mais tey bu ñu yegsee ci cadre bii d'accord on parle d'amnistie on parle de justice mais les lois sont votées à l'Assemblée nationale par les députés man nag ànd naa ci ak ànduma ci man ci li ma ànd mooy ak salaam ci li may ànd mooy dëkk boo xamante ne ñuy boole suñu xel ak suñu xol fexe ba jàmm ak salaam am ndax boo xoolee Rwanda dem ne si nga xam ne ñoo ci fi ba su jaar yëpp je prends un exemple au Rwanda. Rwanda bokk na si li ko ànd génocide bi tey mooy kàddu ndax Rwanda dañoo toog benn avion bu décollé président bi nekk fa. avion ba ba mu décollé ñu xëy dóor ko ab missile avion ba wàcc am ku daw ci rajo bi wax ne lii. daaneel avion bi xeet bii moo ko def ndax Rwanda problème bu xeet la woon ñaari askan yoo xam ne ñoo bokk benn dëkk bokk benn territoire. tey Tutsi ak Hutu. Tutsi yi di takk jabar ci Hutu yi Hutu yi di takk jë jëkkër ci Tutsi yi mu nekk de cousins ñu dem ba tey ñoom seen biir ku ci ne di sa bopp fitna mu ngi mel ni diggante Joola ak séréer yàlla bu mu am. Mm-hmm. mais tey Rwanda la fa xew kenn xamul ñaata moor ngay mën a dénombré tey bu ñu demee ba ñoom seen biir ñu waxtaan.

mais tey Rwanda exemple la bu ñu demee ba jubóolante seen biir joxante loxo baalante ak ba tey quand on parle d'un pays de développement dans une pente de développement on parle de Rwanda Amnesty moo andi loolu. boo demee en Côte d'Ivoire diggante Guillaume Su euh, diggante euh, Alassane Ouattara Laurent Gbagbo dugg ci Guillaume Soro ba ci Blé Goudé bi nga xam ne demoon na ba gars yi wër sur le plan international plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire premier économie Afrique francophone. nekkoon exemple de développement dem ba dugg ci pant boo xamante ne pantu euh, rébellion la pant guérilla yàlla jaar fi mu jaar Côte d'Ivoire dem ba yàqu plus de mille bakkan faatu ci ñu dem ba seen biir ne nañ defarwaat ñu gis tey Laurent Gbagbo Alassane Ouattara joxante loxo di kaf di ree beléegu dañu laajte ko ne ko est-ce que doo jéem a jógaat mu ne mukk su ma jógaatee ak fitna ngelaw gi nga xam ne man ma yor kaani ngelaw yi qui ban ban boor la jëm mun naa cee fàtt kon nañu waxtaan suñu biir ñu créé ay loi d'amnistie mais tey damay faral di wax chaque fois que toutes les guerres se terminent autour d'une table Sénégal dañ fi am ay kilifa diine am cëslaay goo xam ne mag ñi dañ ko quand on parle de république on parle de Thierno Souleymane Baal vers les années 1600 1700 moom moo njëkk a créé la république entre les Torodo et la Mauritanie ci frontière bi jàppante mu dem ba teg ay loi yoo xamante ne dañ koy exécuter tey ñooñu ñoo créé la république ñëw ba ci Thierno El Hadj Omar Foutiyou Tall ñuy wàcc ba ci Cheikhul Khadim wàcc ba ci maam Baye Niass wàcc ba ci maam Limamou Laye wàcc ba ci njaasaan et cetera et cetera cëslaay googu nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi ba république ñëw commencé vers les années 1960 ñu bëgg a jël enseignement bi nga xam ne moom la ñu tubaab yi yóndee muy culture boo xam ne moomuñu ko bu ko wéccoog civilisation bi nga xam ne moom la ñu nampatale ci jàmm salaam suñ dee ba nar a creuser waat Sénégal te ñu toll dans un contenu international mooy Sénégal am na gaz ak pétrole l'un des meilleurs gaz du monde Sénégal la ko moom. damaa jàpp ne tey ji moment bi ñuy waxtaanee Bassirou booy Diomaye Diomaye Bassirou moment bi ñu naan ma daaneel rek moment bi ñu naan euh, Macky ne fi jóg du fi jóg moment bi ñuy xucc ci ay futilités pour réew mi moment boobu Sénégal bu ngi nekk au milieu. sur le plan lobby international à travers le gaz et le pétrole am na ñoom ñu ngi xalaat naka la ñuy def ba récupérer gaz su Sénégal pétrole Sénégal ñun ñu nekk ci ay futilité yoo xamante ne je crois que buñ ci amul benn benn dal mun na ñoo ñàkk loo xam ne ëllëg dinañ ko ci. kon nag damaa jàpp ne am na si bi ki tooñ ak ki tooñul yëpp man damaa jàpp ne nañ gas pax.